salaamaaleykum salaamaaleykum amateurs Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaye di sant yàlla baax ci ni ngeen di toppee jógaat nañ seen émission mag bi di Dakar Buzz social ñëw fii ci Pikine nag fekk ci sunu sœur boo xam ne jaboot la yor jaboot gu sew feebar paralysé mënatula la dem fenn war a faju amul ay moyen yàlla dénk ko njaboot gu sew nag boo xam ne te doole bariwul fii mu toog nii fi lay defee lépp te duma xale la ma bëgg di lañ ci tàllal loxo rek waaye daal sonn na yooyu doon dimbal même bu moom sax njaboot gi sew gi mu yor ñu yaakaar ci moom te doole bariwul ku daan xëy di wuti pour jox sa njaboot te yàlla teg la lii njaboot gi dañuy jaaxle mu ay prenteeli sew yoo xam ne sësuñu fenn yaakaaroon fenn fudul ci seen yaay ji nga xam ne moo leen yoroon tey mu tëdd ni wara a faju mënul lu mu faju amu ko waaye ñu gën a xalaat njaboot gi nga xam ne moom moo ne ci biir mu yor leen di ci sant yàlla nag ci ni ngeen di bàyyi xel émission bi di Dakar Buzz Social jógaat nañ tey ñëw fii ci Pikine Rudis war waxtaan ak ki nga xam ne nag moo yor malade bi euh, lii ko dal kañ ak nan la waaye sant yàlla ci ni ngeen di bàyyi xel émission bi di Dakar Social di nuyu réew mi di nuyu waa bitim réew soxna si maa ngi lay nuyu. waaw ah, toog. day kii malade nu tudd. xadi toog. sa la. ñoo bokk ndey ak baay sama rak. kañ la. lii daal bu mu amee doom ci la ko jëlee woon lem man ñeenti at bu ne daw naa jëm hôpital bu ne dem naa fa dem nag ba sama doole jeex a dem fenn mu toog fi nii bu sangoo maa ko sang mu sóor du ko def dama jënd mbaxane defal ko ci bopp bi dara fi ne fii mu toog nii bu doon jóg dama wut ku ma ko jàppale mu jóg. mun mënu yëkkati boppam mënu sang boppam mënu musal boppam mënul boppam dara lekk sax mënu ko kuddu gi sax du mënu ko dugal ci gémmiñam dañ ko ko ciy dugal waaw bu seexee balaa muy wanaasu dana am lu mat waxtu waaw. moom ñaata at la am. am na fanweeri at yu tegal waaye dafa jaboon nag njaboote gu sew dafa jaboot. am na borom kër. am na borom kër borom kër ma nga kebe meer foofu la ko dale dëkk bi la ko dale waaw ñu indil ma ko fi booba tey na maa ngi ciy daw kenn fekkuma ci. dama ciy néew doole lool may sàkku ndimbal ma ci waaye mën a dimbali. <laughs> jafe-jafe yi lan la yor sam uh, rakk mu feebar nii te doole bariwul nan ngeen di dundee lii ndax maa ngi fekk ci naaj bi te xam naa ne fu mu jëm dañ ko faa jëmale. fu mu ko faa jëmale bu jógee maa ko yëkkati bu toogee maa ko dimbali mu toog bu sangoo maa ko yóbbu ci dus bi te ko ci bank sang ko maa koy maap maa koy solo yëreem mënul dara mënul boppam dara lu man daal maa ko mënal daal maay ay loxo maay ay tànkam waaw ma néew ci doole lool nag sonn lool daw naa bu daw naa jëm bu ne daw naa jëm ma gën a bëgg ndimbal ci ginnaaw euh, ginnaaw yàlla jullit ju ma jàppale jàppale ma ci njabootam sew gi xaw ma nu ma leen di def waaw. ndimbal lan la bi nga bi nga bi doon dem hôpital di faju doon dem hôpital di faju sëtoo laa ko jëkk a yóbbu ba mu demee ñàkk naa fa ñeent fukki junni nangam teggi sama nat bi doomam ji dimbali ma ma ma ma ma mottali yóbbu ko sa taw ñu defal ko rajo defal ko yëpp dem nañ dema dem daal ba jébbal ma ko mënatuma dem nag ndax amatuma loo yóbbu ma mi laa sama bopp ci moom fu ma dégg dem fu ma dégg dem ma dem naa ci maama nii dem naa ci docteur yi fu ne dem naa fa damaa dem mënatumaa dem su ma xëyee rek dama koy sang toog moom di xaar yàlla ndax mënatumaa dem fenn amuma lu ma ko faje waaw ma bëgg ku ma ci dimbali rek ci yàlla tax jërëjëf am am internet yi Dakar ba dafa metti waaye ñi ngi sant yàlla métti na nag ci xale boo xam ne amagul ñeent fukki at toog fii yàlla dénk ko njaboot gu sew magam ji mënu ko woon ginnaaw mënu koo bàyyi fu mu jëmee day mun a toogam moom dagg na activité am yëpp parce que moom moo daan joge di ko dimbali te ku may yor ku mel nii mënoo koo sori waaye ma leen ci tàllal loxo yi ñëpp rek lu ko waay mën a dimbalee rek ngir yàlla mu jëm ci moom bu dul dara sax di njaboot gu sew gii mu yor. nga xam ne lekk war na leen naan war na leen te yorunu fenn fun ñu ko yaakaaree ne fu dul seen way jur yi ah, ah bi nga ni ma ne mënatumaa xëy mënatumaa wàcc sama liggéey yëpp tey moom la su ma xëyee maa koy toppatoo mënu ko mënul sa bopp dara mënoo xëy wàcc ko fi wàcc ko fi moom doog mu ni toog toog yaay tëral yaay yëkkati fi mu ne nii bu doon tëdd tey maa koy dimbali mu tëdd maa koy jóg yëkkati mu taxaw maa koy sang maa koy defal lépp mu yor njaboot gu sew ruuj nag njabootam jëppa tasaaroo ñii yóbbu naa leen mbuur ñee ñi nga kebe meer ñaar ñi ñu ngi fi ma ama loolu metti na ci njaboot waaw te boo xëyee jafe-jafe day nekk ci sax pour nga jox leen lekk ñu lekk sax ko ne ni bu ma pour du ma ko lijjanti ñu ndékki sax amu ko maa ngi ni na naa tàkk waaw jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ko ma leen ciy tàllal loxo rek te xam ne kuy defal yàlla ci jaamu yàlla bi daal soxla na ko feebar na eh, sonn na yàlla nag mooy yëkkati mooy tëral yàlla na ko yàlla yëkkati waaye njaboot gu sew gi moominu yàlla yi nga xam ne ay la lan yoruñu dara xamuñu dara bu ndawee ak seen yaay bëgg a ndékki duñ am lu ndékkee day mit bëgg a reer duñ am lu day day mitt waaye nag yàlla jeexul te yaakaar naa ne ci yéen ñi nga xam ne yéenay def lu baax di sant yàlla nag ci plateforme boobu nga xam ne moom lañu ubbi numéro bi di 78 601 11 11 ñu ne képp kuy bàyyi xel émission bii di Dakar Buzz social ñu ngi lay ñaan bu dee téeméer bu dee ñaar fukk bu dee junni lu mu mën a doon boo ko yónnee ci numéro boobu rek danañ ko jël tey it danañ dimbali bu ñuy seeti malaat bi mën cee jël di ko jox jàppale ko ko ndax lu baax boo koy def yaa cee jiitu moom nag li ni njëkk def mooy jàppale ko ci turu plateforme boobu nga xam ne mooy 78 601 11 11 dañ ko ci jàppale ndax bi mu xëyee rek njabootam gu sew gi amuñu lu ndékkee ndékkiwunu seen yaay la nekkal seen yaay bi lañ war a joxu ñu ndékki mu ngi nii toog mënta dem xam naa ne euh, du tey rek lan toog ndékkiwunu waaye nag yàlla bëri na sutura te yaakaar naa leen ci gannaaw yàlla ak yéen ñi euh, ma leen ci talal loxo rek euh, ngeen jàpp ci te xam ne ku lebal yàlla yàlla fay la te ay moomin la yor te xamuñu dara seen yaay jee leen dimbali te tey manul Dakar ba social nag dina ko dimbalee fukki junni ndax booy def lu baax yaa ca jiitu te di ñaan suñ fukki junni yàlla barkeel ko ba mu mën cee jaare sax faju mën a yor njabootam gi nga xam ne dinañ lekk di naan comme bi mu xëyee nag ndekkiwul te xam naa ne buñ ci jàppul dana doy waar ñun danañ ko jàppale loolu euh, nooy dundee xale yi. ah nu may dundee xale yi xanaa sonn rek sonn rek yàlla xam na ne fi ma dëkk dama koo liwi amatuma lu ma fay lu yaas amatuma lu ma lekk amatuma lu ma naan wallaahi asim barki yonent bi maa ngi amee borom kër gi xaalis lu yaas bu xam ne fu ma koy fay ndax man maa daan dem di jaay nga ba sama paan di dem di jaay di ñëw léegi loolu yëpp mënatuma ko. ndax sama rakk ji mënu ma koo sànni ko ma koo wàcc mënu ma koo xaw mënu ma koy def waaw ci ma biiru njaboot gu sew ruñ la yor waaw. boo xëyee loolu lañ jox ju lekk rek da lay tawit jaaxal. wallaahi damay jaaxal yàlla xam na ko wallaahi. naa léeg-léeg julli ci yàlla ñëw seet si ko jox ko ñaar téeméer wala mu jox ko ñeenti téeméer wala mu jox ko ñetti téeméer waaye man mënatuma dem mënatuma dikk maa ngi toog jërëjëf ba tax na ci kàddu yooyu ci leen sukkandiku Dakar ba social jox ko fukki junni mu daw mën ci utal xale yi lu nu lekk jëndal ci seen yaay ji lu mu lekk li des mu téye di ko man cee jox xale yi ndax loolu mooy priorité seen yaay dafa feebar ñu ngi ñaan yàlla yëkkati ko waaye xale yi mun noo xaar ndax li ñu xam mooy bu ñu xëyee dem ak seen yaay ngir laaj ko ndékki añ mbaa reer bu fi newul nag day métti day jaaxle lool waaye nag yàlla bëri na sutura kon ndakaar ba sociale jox ko fukk junni te leen ciy xaar nag ci lu jëm ci moom ak njaboot gu sew gii mu yor. Seydou Dakar Bourse Sociale jox na ko fukki junni tey ñaan mu barkeel tey daw nga fu ne àkk fa jeexal nga takk yorotoo dara bi nga xëyee pour nga jox xale yi lu nu ndekkee sax jaaxal na la Dakar Bourse Sociale seet si la di la ñaanal ndimbal ba pare jox la fukki junni ngir jàppale la ko sa rakk ji ak doom yu ndaw yi nga xam ne moom la yor te yaakaarul kenn ku ci yow yëg-yëg bi lan la. ah sant yàlla rek di leen sant di leen gërëm yal yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla barkeel télé bii. fi ngeen bëgg àgg yéen a ko xam yal na fa yàlla àggale lii ngeen di def ci lu baax yal na leen ci yàlla may ndam yal na leen ci yàlla may ndam ndax ginnaaw yàlla kat yéen a jàppale julliti yàlla yi seetaan la télé dëgg yàlla moo tax ma woo la am ci yow yaakaar ci yaakaar ji ma am ci yéen itam tasu ndax ñëw nga jàppale ma ndax yërmaande rek ngeen di def lii ngeen def ci julliti yàlla yi nag yal na leen yàlla fay yàlla mi am pay yal na leen yàlla fay yal ngeen yokk ba yëg ko ci barke yonent bi amiin malade bi nu mu tudd nga ni yaa ngi si jox na la fukki junni lan ngay wax waa Dakar Buzz. waaw yaa ngi jërëjëf mbokk yi ak am internet yu Dakar Buzz di ñuy nag sama yaayu bopp mère Ndawa maa ngi lay nuyu di la sant. di la ñaanal yàlla sa cas bi ñëw naa ci ngay ku social nag mais ndaw yaa ngay dimbali nit ñi yaa ak say doom yàlla yàlla la a la cat a sàmm te li ngay sonn ci doomu aadama yi yàlla fay la ko du bii rek yaa nga tàmbale ca daado sekk yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ci nga njëkk a participer mère Ndawa kon maa ngi lay nuyu di nuyu sax njaboot gi yëpp di taxaw leen jàppale leen. a baax waaw maa ngi a sant sama gi baax jooju. fu mu toll di ma nemmeeku maa ngi koy sant bu baax a baax ndax lii lépp su ma ko amee nag yàlla ak moom la nag ndax wax dëgg yàlla moo ma booleeg yow te ma boolee nga sawar ci lool waaw sant rek wala cant ak ngërëm rek yàlla na taxawaayam yàgg waaw jërëjëf. jërëjëf amante ni Dakar Buzz lii moo nekkoon seen émission Dakar social seet si ko tey jii jox ko fukki junni ngir jàppale ko ngir jàpp la njaboot gi sew gi yoor nga xam ne bi mu xëyee pour mu jox leen lu nu lekk sax parce que tout un problème waaye yàlla bëri na sutura te yàlla jeexul. ñu nag jox na ko fukki junni ci plateforme boobu 78 601 11 11 di leen ci xaar nag bu vidéo bi ngeen mën cee jàpp lu jëm ci moom ak njaboot gi sew gi mu yor ci micro bi Fadal bi ngeen tàmm gis la ci cadre bi Seydou laa ci àndal jërë ngeen jëf seen émission Dakar Buzz Social jërëjëf